sëlmalee.
c'est-à-dire kooku day sujjóot xabla salaam.
kooku moom day day àggali julli gi sujjóot xabla salaam.
ku jëkk gi day sëlmal sujjóot.
ku jëkk ga day day sëlmal sujjóot.
ku mu xabla salaam.
ku mujj ki day sujjóot door a sëlmal.
sujjóot door a sëlmal.
ki ko fàttali ko te mu fekk mu nekk ci biir rukkoo.
ko fàttali ko rek ñu fekk mu nekk ci biir rukkoo.
ñaar ñaari wax a caam.
nee ñaari wax am na ci.
nee nañu faat na.
nee nañu faat na.
mais am ñu ne déedéet day dellu.
am na ñuy déere day dellu.
ni bu ko fekkoon ci taxawaay.
ni bu ko fekkoon ci taxawaay.
yéen baal ñu àq. ñu def loolu.
nit ñi jàng naan googu moo xoon Fatia. salaatu salaatu waay ma. rabbil alamin ñu teg ci xaqa xamdihi.
mu teg xaqa amdihi alhamdulilahi rabbil alamina xaqa xamdihi.
alamin xaqa amdihi ñett yoon.
nga teg wax ko ñetti yoon door wax arrahmani rahim abale fatiha.
maa ngi rax ñu ba Fatia di ak teg salaatu ala teg nabi.
salaatu ala nabi juróom ñaar fukki listixfaar.
juróom ñaar fukki listixfaar laa ilaha illa allahu sayiduna muhammadun rasulullahi.
laa ilaha illa allah sayiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukk ñaar fukk ak ak ñaar.
ñeent tëjee ko tëjee ko salaatu salaatu boobu.
booba yal nañu yàlla jéggal.
yàlla na yàlla boole jégalu ñee te jëfante ñun ci te mu yërmande.
jëfantee ñun ci yërmandeen nawet bi yal na ko yàlla yàlla àggale.
na ko yàlla àggal te barkeel ko yaakaar yi rëy na ci lool.
ñee yaakaar yi ñëwee ci lool njort yi rafet na ci jot yi lool.
rafet na ci lool yal na ko yàlla àggale fépp.
yàlla na ko yàlla àggale fépp te mu màccale.
te mu màttale fépp yal na bu mu nekk suñu mujj nawet.
yàlla mu nekk suñu mujj nawet yal na bu mu nekk suñu mujj nawet.
yàlla mu nekk suñu mujj nawet tabaski ji lépp luñ ci def yal na ko yàlla nangu.
ci jële lu ne lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu.
yàlla na ko yàlla nangu yal na ko yàlla yàlla na nangu.
ko yàlla nangu yal na bu mu nekk suñu mujj tabaski.
yàlla bu mu nekk it suñu mujj tëbët maa ngi ziyaara kilifa yi ci réew mi yépp.
mais mi ngi nekk ci yàlla mboolem kilifa yi ci réew yi yëpp di yeesal ak bokk ku kóllëre goo xam ne gi doxoon na digganteeg mag ña.
di yeefal nag ak bopp ak kóllëre goo xam ne gi doxante ni doxoon ci diggante mag na ko yàlla na leen ko yàlla sàmmale woon.
na leen ko yàlla sàmmale woon boole woon leen ku ñu di ko doxal ci rafetal.
mu boole woon leen ñu di ko doxal ci rafetal yal nañ ko yàlla sàmmale noonu.
nee na yàlla na ko yàlla sàmmale noonu kattanal ñu ci dox di ko doxal ak rafetal ko.
kattanal na ci di ko doxal noonu ak rafetal ko te mu dugal ci loxol ndimbalam.
te yàlla dugal ci loxol ndimbalam te boole ñu ci soppi te rasulullah.
mooy soppi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yal nañ ci dund dee ci dekk ci.
yàlla nañ ci dund ci woowu mel ak dee ci dëkk kenn ku nekk fa nga seet ba mu doy la nga jàpp fa.
kenn ku nekk fa nga seet ba mu doy la nga jàpp ña ca jëriñu yal na nga ca nga bokk.
fa jëriñ yàlla nañ ca bokk ca tarixa ba nga féete.
sa tarixe ba nga féet la nga yaakaar ci sa sëriñ.
la nga yaakaar ci sëriñ sa sëriñ yaakaar ko ci sa yàlla.
sëriñ it yaakaar ko ci yàlla ba nangul la sa ànd ak moom.
ba nangu la sa ànd ak moom yaakaar joojee.
yaa yaakaar jooje ak njort ak yooyee.
jot yooyee yëpp yëpp yal na bu ci tax.
yàlla yàlla tas dara yal na yàlla matal yëpp.
yàlla yàlla matal lépp ñu ngi leen di dégg suñu bopp dégg boppam ñu ngi nuyu kilifa yi fi nekk mu ngi nekk mboolem kilifa yi fi ne di nuyu préfet bi mu ngi nuyu préfet di jaale alxaaji Malick Ba di jaale xaaji Malick Ba Babacar Ba mu dafa jaale Babacar Ba yal na ko yàlla yéegal ci barsaxu Cheikh ci barsaxu Cheikh te yërëm ko te yërëm ko ci barke maamam parce que maamam ci li mu liggéey ci diina li ji mu liggéey ci diine ji mu di maama ba jaxu muy maamam ba jox jox waaw yàlla yàlla yërëm suñu yal way dawe na yàlla yërëm suñu way dawe
gàttandoo leen yërmande gàttandoo leen yërmande dañ leen a topp dara bañ leen a topp dara ñu nit yàlla nañ fi desandi ba ca ñun yàlla kanam nañ si desandi ba ca kanam a kanam ànd ak jaamu yàlla ànd ak jaamu yàlla ñu ngi nuyu maire bi nee mu ngi nuyu maire bi ñu ngi nuyu commissaire mu ngi dëkk nuyu commissaire dëkk bi bi ñu ngi nuyu docteur bi mu ngi nuyu docteur bi ñu ngi nuyu chef poste gendarmerie bi mu ngi nuyu chef poste gendarme bi ak chef de ak chef service yi nekk de service yu nekk yëpp di nuyu Abdou Ndaw mu ngi nuyu Abdoul Aziz Ndaw am mu ngi nuyu Abdoulaye Aziz Ndaw di nuyu kilifa di yëpp nuyu kilifa yëpp di yeesal suñu bokk di yeesa ak bokkam ci yéen maa ngi wax Mansour su delloo na ma nuyul directeur rajo mi bi ngi wax man soo bu delloo na ko nuyu directeur rajo bi ak ki ña fa ak nekk ñëpp ña fa nekk ñëpp ak ministère bi ak ministère bi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant président ñu ngi sant président de la ñu république ngi sant ñëpp di sant ñëpp yal na yàlla gën a boole xol yal yi na yàlla gën a boole xol yi yal na yàlla gën a yal na boole yàlla xol gën a boole xol yi yi réeroo gi nee réeroo gi ñuy wax suu ut tafahum ñuy wax su ñuy suu tafahum ci arab ci arab mu di malentendu muy ma ñàkk déggoo yal na ko yàlla dindi yàlla na ko yàlla dindi seytaane rek la seytaane rek la ak liggéeyam ak liggéeyu seytaane waaye du dara waaye du dara
xalifa bu tedd ba nee na yal na yàlla may nu yàgg ko fee daje.
mooy ko jullit yëpp ak seen kilifa mu may ko jullit yi yëpp ak seen kilifa.
te fu ñu ko fi bokk defee yal na ko yàlla nangu.
te fuñ ko fu fekk defee rek yàlla na ko yàlla noonu.
lépp lu fi way andi ci bakkaar wala feneen fu ñu ko defee yal na fa bakkaar yo des ne lépp lu fi wàññi ni ci bakkaar wala feneen fu ñu ko defee yàlla na ko bakkaar yo des.
ba mu mel ni bés bi ngay door a juddu ci sa ci sa ndey ak sa baay de nga seet sa lépp ba mu ne ci bés bi nga doon a juddu jamais ak sa baay.
yàlla mën na ko nee na yàlla mën na ko
ñu ngi koy sant ci fekke gi ñu ko fekkee at mais ñu ngi sant yàlla ci fekk ngi ñu ko fekkee at.
dina yàlla yàlla ko at yu bari.
yàlla na yàlla may na teewee ko ak yu bare bare bare.
te mu defal ñu koy te mu defal nu ko
mu di yokk ci wàll mu defal na ko mu di ak yokk ci wàll.
baaxa ñu rottaxal suñu diggante ak mais mu baaxal ni nga tax suñu diggante ak moom.
rottaxal rottaxalal ñu suñu diggante rek taxalal yi suñu diggante.
ci suñu diggante ak suñu kilifa yi diine ci suñu diggante suñu kilifay diine yi
ak suñu kilifa yi àdduna ak suñu diggante suñu kilifay adduna yi.
yal na yàlla rottaxal suñu diggante ba mu rafet yàlla yàlla na taxal suñu diggante yooyu yooyu yëpp la mu rafet.
rafetal suñu kànd nee mu rafetal suñu kan.
te rafetal ko rafetale ko te nee mu rafetale ko nag.
jàppante ak bëggante ak dimbalante jàppante ak bëggante ak dimbalante
defal ñu koy ñu defal ko ñett
kenn ku nekk kenn ku ne
law yàlla ak yonent bi gannaaw yàlla ak yonent bi
sa mbokkum jullit mu mën a doon sa mbokkum jullit mu mën a doon
ak na mu mën a meloo ak na mu mën a mel
nga àndeeg moom ni yàlla àndeeg jàmm nga ànd ak moom ni yàlla àndeeg jaam yi yàlla àndewul ak ñun lu dul jéggale ak jëlale mais yàlla kat àndewul ak nu lul jéggali ak jëlali
melo wii ñu nekk ci biir jamono yàlla nañ ci yàlla jëli mais melee nii nu nekk ci biir jamono yàlla nañ ci yàlla jël
booleel ñu xol yi boole Sénégal ñëpp àndandoo na mais mu booleel ñu xol yi booleel Sénégal yi ñëpp àndandoo nekk benn
te mu bañ ko yemale fi yàlla na ko def ci àdduna bi te mu bañ ko yóolu fi rek yàlla ko def ci def ci àdduna bi yëpp
yàlla yàlla yóbbu ci cellate ba ku nekk wóoru wóoru sa morom mais yàlla na yàlla yóbbu ci cell cell cell ba kenn ku ne wóolu sa morom baax ñu ba kenn ku nekk ci ñun looy wax ak sa morom wala ngeen di ko jëfante dara ci kuruj bañ sa nekk mais mu baaxen de kenn ku ne loolu waxal ci sa morom mbaa nga di ko jëfante moom benn ci wul bañkaan yi xutba bi nag li tax mu gàtt mais xutba bii nag lu tax mu gàtt
télé gi rek a tax mais télé rek a tax wéra di ak wéra si dama doon bëgg a jox Serigne Habib sax mu julli waaye moom it ay tànkam mais danañ jox seen bëgg na seen aju sax mu julli waaye moom it xam ngeen tànk yi mooy neexul ci taxawaay bu yàgg wala Serigne Lamine wala sëriñ la muy kebe
waaye itam waaye
eh, ak lu ñu mën a lu mu mën a mel am daal nu mën a mel daal
ñu jéem a góorgóorlu suñu kemtalaayal kattan mais ñu jéem a góorgóorlu suñu kemtalaay kàttan suñu mënul maximum bi mais bu ñu mënul maximum bi ñu def minimum bi kon boog ñu def minimum bi ndax xam naa ni dana leen neex mais da xamee lii dana leen neex da ngeen ci kontaan dina ci kontaan yi kon nag jaadu na ci rafet kon nag jaadul seen
su fekkee nag sama lor def ci féete bu fekkee ni sax moom ak loram def ci féeti sax ci doon ci wàllu àdduna sax te bu doon ci wàllu àdduna sax ma war leen kon ñu ma war leen kon nangu waxatuma la lu jëm ci wàllu yàlla waxuma laa nag nga xam ne lii dafa jëm ci wàllu yàlla ñun duñu dara mais mais ñun duñu dara
waaye yal nañu yàlla rus ci seen barke waaye daal nee na yàlla na yàlla ruus ci seen barke ak bés bu màgg bi ak barke bés bu màgg bi la imaan ak yéen def ko mais lii mu ànd ak nun def ko ak li mu xam ci sama bopp amoo li mu xam ci bopp
yal na yàlla wàccu lépp te jëfanteeg man ci yërmandeem ndax yéen ñëpp ngeen dugg ci mais yàlla yàlla wàccu lépp te jëfanteeg moom ci yërmandeem ak mbaaxam ndax ñun ñëpp ñu dugg ci ak adduna yëpp ak adduna yëpp ak jullit yëpp ak jullit yëpp waxuma jullit yi waaye ñi dul jullit te ñu bokk ak réew mi sax ni ma yéene sama bopp jàmm noonu la mais leen waxu son jullit yi kat waaye ñi dul jullit te nu bokk réew mi ni mu yéenee boppam jàmm la ko yéenee ñëpp ñu bokk benn carré mais ñoo xam ne ñoo bokk benn carré wala benn koñ wala ñu bokk benn koñ wala mennum pénc wala ñu bokk benn pénc wala ñu benn benn dëkk wala ñu bokk benn dëkk wala mennum réew wala ñu bokk benn réew
waxuma la sax ñoom waaye réew yi leen wër sax ñu war nañ ñaan ñu nekk ci jàmm mais waxul ñoom waaye réew ma leen wër sëpp war nañ war nañu ñaan ñu ne ci jàmm ndax wolof yi dañu wax ni ñëw ñax gu wàll woowu ndax kat wala nee na ñox gu woow dina la ko gu tooy
tabaski ji nag mais tabaski ji nag
wax nañ ci ba tey mais wax nañ ci ba tey ngeen dégg ko waaye nag du tere ñu waxaat rek waaye du tee rek ne ñu waxaat rek nag alxuraan kañ ko kañ lañ ko tàmbali mais jàng alxuraan kañ lañ ko tàmbalee jàng kenn xamu ko kenn xamul kañ lañ ko commencé jàng te jamono ba mu wàccee ca jamono ba mu wàccee sallallahu alayhi wa sallam ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy jàng ba léegi mais ñu ngi koy jàng ba léegi te juróomi yëf rek la boole te kat alxuraan juróomi yëf rek la boole digle nee na digle ak tere ak tere ak dële ak dële ak tëkku ak tëkk ak njàngat ak jàng kon itam benn benn yi nga xam ne danañ ko daj nee na ko nit benn benn yi nga xam ne yi daanu ko daji mu di béy bés yu rëy ci lislaam mu di bés yu rëy ci lislaam yàlla terale ko sëy ummata sayyidina Muhammad yàlla tagale ko xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
yàlla nañ fi jële njëriñ waxtu ñu fi dajee boo xam ne danañ ko jëriñoo suñu biir ak suñu biir yàlla na fi jëlee njëriñ waxtu yi fi dajee boo xam ne daal ci daanu ko jëriñu ci suñu biir ak suñu biti yàlla na bu mu yam rek tey julli ga mbooloo ma na mu bare mais yàlla bu mbir yem ci ay jullit teega daal na mbooloo mu bare wala man ma def sama kontaante rek ci barik mbooloo mi wala moom mu def kontaan teem rek ci bari mbooloo mi yéen yi ngeen def sa Eh, yéen itam ngeen def ko rek tey waajale xutba tey bi li ci waxee mais mais di ko di ko moom
tabaski sunna la mais tabaski sunna la
at mi ko yonent bi digle mm, soxlawul tudd rek gudd mais ak mi ko yonent bi digle soxlawulu gudd day tudd soxlawulu tudd day gudd kon Seydil Hadj Malick nee na Seydil Haaji Malik ci xam-xamam ci xam-xamam ak lu mu gëstu ak lu mu gëstu ci diggante waxi sallallahu alayhi wa sallam ci diggante waxi sallallahu alayhi wa sallam ak waxi fóore yu ko jiitu woon ak waxi fóore yi ko jiitu woon ak boole li nga xam ne yàlla may na ko ko ak booleeg nag li nga xam ne lii yàlla may na ko ko
bëgg bëgg ak bëggam jaam yi njariñ njariñu ak bëggam nag jaam yi bokk jëriñu
moo tax mu def lii mais loolu moo tax góor gi def lii foofa nag ñaan Alhaji Abdoul Aziz xalif général Tijani ni ñaan jot na ci jullit yëpp ndax fi xam ni sax fa la ñu yaakaar ni fa la diine jóge wala diine sax jóge ci wet yooyu gis ngeen ya fay xew kon jullit gànnaayam yëpp mooy ñaan
fii ñu yaakaar ne fa la diine ja jóge mais suñu yaakaar yi fa la diine ji jóg ba tey léeg-léeg nga gis ab jullit jandoog jullit fii siye ko de ba tey leneen ab julit dañoo julit fii si ko fetal ko mu daal
borom tabaski bi nag mais borom tabaski bi nag la gën ci moom mu rendil boppam ngir roy sallallahu la alayhi wa gën ci sallam moom mu rendal boppam tabaski ngir roy sallallahu alayhi wa sallam su lottee ci loolu su lottee ci reen boppam na wut ku ko rendi ñëw ku ko rendi waaye na teewee rendi ga waaye nag na teewe rendi ga su rendee ba noppi su rendee ba noppi ndegam daf ko fas yéene jox dara ndegam daf ko fas yéene jox dara na c'est pour jëf gi mu ko pour jëfal jëf ji mu ko jëfal doon tele bu sebel ya doonte le bu sele wala ki nga xam ni fuuram la amee di ko wala nga wàjjal xam ne fuuram la amee di ko kaja na ko jox ngir teralanteeg moom waaye mu ngi ko jox ci yàpp wa dara pour faye ko li da mu ko koy jox defal muy ferleete moom waaye mu ngi ko jox ci yàpp Christ la dara ngir feye ko
sopp sàkku nañu ne sopp nañu sàkku nañu sàkku nañu ci tusbaari bés bi la tey tisbaari bés bii tey gannaaw boo jullee farata gannaaw boo jullee xarab bu nekk ba ci subas ba ñeenteel ci sa suba ñeenteel ba allahu akbar nga def takbiraat yooyu allahu akbar ñetti yoon nga di ko def nga di ko def
ma ngi bëgg waxtaan ak yéen waxtaan wu gàtt jëmul fen mi ngi bëgg waxtaan ñun ñëpp waxtaan wu gàtt jëmul fenn
kuy def ngir yàlla doo tay ndax koy def ngir yàlla doo tay
waaye nit ñi soo dee seet sax dafay mel ne qaala allahu daf leen bëgg a sàppi fi mu waaye nit ñi moom boo dee seet day mel ni yàlla nee na da leen di bëgg a tàkk
wala qaala rasulullah wala ñu ni yonent bi nee na da leen di bëgg a tàkk
yoo yooyu ñaari wax ku mu sàppi yooyu lañ ñaari wax nag ku mu sàppi koo ne ko yaay sama sëriñ kooku koo ne ko yaay suuf sëriñ
da nga koy naxal danga koy nax
ndax la tax nga topp ko doyloo ko gëm ko ndax la tax nga topp ko doyloo ko gëm ko ci ñaar ñooñu la ko ci gëm ñaar ñooñu moom ca la ko gërëm te boromum xel te ne kat boromu xel su bëggee doyadal ñi tax nga tedd su bëggee doyadal ñu tax nga tedd di wiyale seeni di luwa wéyale seeni loi ne daf lay defal li la loolu neex daf lay defal yow sa bopp lu la neex su sam xel gàttule lool su sam xel gàttulee lool dàq sax warul ne dàq sax warul wala toroxal wala toroxal waaye bàyyi ko mu wax rek waaye bàyyi ko mu wax rek waaye su waxee ba waaye su teeral waxee ba teewal jëfal yow jëfal yow la dëppoo qaala loolu allahu dëppoog yàlla nee na ak qaala ak xaal rasul rasul yonent bi nee na
yal na yàlla dimbale ci yàlla na yàlla loolu dimbali ci loolu ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa ñu ngi taala ñaan suñu borom tabaraka wa taala yal na yàlla musal adduna bépp yàlla yàlla musal adduna bépp ndax yëngu-yëngu bi bari na reyante bi bari na ndax te yëngu-yëngu bi bari na reyante bi bari na te la ci ëpp yëpp jullit yee koy defal te kat la ci ëpp yëpp kat jullit yee koy dafa def seen bopp waaye dara tegu leen ko waaye dara tegu leen ko lu dul wàcc yoon wi nga xam ne moom la yàlla waxoon ni mooy sama yoon jaar leen ci lu dul wàcc yoon yi nga xam ne wii moom yàlla ne woon lii wii mooy sama yoon jaar li yonent bi ñëw feddali ko yonent bi ñëw caddali ba muy bëgg a dem dañu dajo ci kawam ne ba ñuy bëgg a dem dañoo daje ci kawam sallallahu alayhi wasallam ñëpp jooy ñëpp toog ci kanamam jot ne ko yow yaay suñu leeru mbooloo ni ko yow yaay suñu leeru mbooloo sa gannaaw naka pexe waaw sa gannaaw nag naka pexe mu ne leen ne yonent bi nii leen danaa leen fi bàyyi ñaari yëf dinaa leen fi bàyyi ñaari yëpp feeg yéen a ngi ci mooy feer yéen ci mooy du ngeen sànq du leen sànq loola lan la loola lan la alquran alquran ak sama sunna ak sama sunna wala mu- wala bo dee gi deel gi
ak alquran ak alquran kii ngi nappi ne kii gi noppi di di def li muy def def li rek muy def dee du tàggu kenn dee moom bu tàggu kenn day dugg rek day dugg ci kër rek fab baay fab baay ndegam moom la war a ndegam jël moom la war a jël fab ndey fab ndey ndegam moom la war a ndegam jël moom la war a jël fab xarit fab xarit wala doom wala doom wala sëriñ wala sëriñ wala ki ñëpp yaakaar wala ki ñëpp yaakaar ndegam moom la war a ndegam jël moom la war a jël waaye ci cantaane la ko defee waaye kat ci cantaane la ko defee waaye demanul dara waaye dee mënul dara su fekkoon ni mooy defal boppam su fekkoon ni dee mooy defal boppam kon yëg ngeen bu yàgg ne am na nit ñu dajaloo rey dee bu yàgg kon yëg ngeen ni am nañu nit ñu bari ñu dajaloo rey dee bu yàgg
ci loolu lu am la te loolu am la kon nag nekkoon nag yal nañu yàlla dimbale yàlla na yàlla dimbali
boole ñu boole nu ñu àndandoo nu àndandoo ñu ngi dénk mboolem jullit yi ne ñu ngi dénk mbooleem jullit yi fu fi waay yi dem na nga góor góor lu nga juboog say mbokk ngeen ànd àndin bu rafet bokk liggéey fu fi waaye dem noonu jubal say bokk ngeen ànd àndante bu rafet bokk liggéey su dee région bu dee région wala feneen fu mu wala feneen fu mën a doon ñëpp nañu ànd ci loolu ñëpp nañ bokk àndandoo ci loolu ñu dimbale suñu bopp nu dimbali suñu bopp dimbale diine ji dimbali diine ji dimbale suñuy sëriñ dimbali suñuy sëriñ dimbale suñu kilifay adduna dimbali suñu kilifa yi adduna dimbale suñu njaboot dimbali suñu njaboot ndax suñ leen joxee gannaaw bàyyi leen ak méthode bu rafet bu ñu mën a juboo mën a ànd ndax bu ñu leen wanee gannaaw bàyyi leen ak méthode bu rafet bu mën a juboo mën a àndandoo ànd lu rafet waaye suñu dëkkee ci ŋaayoo ak xuloo ak jàppante waaye bu dëkkee ci ñaayoo ak xuloo ak jàppante yu bari yu ñu bëggoon danañu raw te fekk ñoo ko teg yu suñu bari yu nu bëggoon daanu raw te fekk noo ko te suñu bopp fekk xol yi àndul nekk benn fekk xol yi àndandoowul nekk benn def li yàlla bëgg def li yàlla bëgg su yeboo ñun ñëpp ñu àndandoo tànn ñi gëne fa yaakaar ci jaam yàlla bu yeboo ñun ñëpp nu bokk àndandoo tànn ñi gënee fa yaakaar ci jaami yàlla yi ñu jublu penku ñu topp seen gannaaw di wax allahumma ñu jublu penku di ñaan nu topp seen gannaaw di wax allahuma yàlla ne ma bañ yàlla ne maa bañ du tax mukk ma jox leen li ngeen di ñaan gouvernement bi nekk seen côté di leen dimbale gouvernement bi nekk seen côté di leen dimbali te defuñu li yàlla te bëgg defuñu li yàlla bëgg yàlla ne ma bañ yàlla ne maa bañ loolu xadis bu wér la loolu hadis bu wér la sallallahu alayhi wa sallam sallallahu moo ko alayhi wa sol sallam moo ko sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax wax yonent yàlla Muhammad moo ko wax kon nag nañu daan jikko yi kon nanu daan jikko yi ñu rafetal xol yi rafetali xol yi wattu par parloo bi ci adduna bi nu wattu par parlo bi ci adduna bi te par parloo bi jéggi na léegi secte yi te kat par parlo bi jéggi na léegi tarixa yi mi ngi dugg ci biir parti yi mi ngi dugg léegi ci biir parti yi mi ngi dugg ci gouvernement mi bi ngi dugg ci gouvernement da ngay dem ci bureau bi da ngay dem ci bureau fekk fa tijaan fekk foofu tijaan yow nga di xaaj yow nga di xaaji wala ngay murit wala ngay murit mu négliger sa mu affaire nit li si sa affaire
ne bokkuma ak ñu moom bokk tare maa moom tarixa
nga dem di murit fekk ma tijaan bi ñëw fekk sa la ci sa bureau nga dem di murit bu yaay kilifa bureau bi tijaan yi fekk ak tijaan yi ko ci sa bureau ngeen bokk réew mi ngeen bokk réew mi war a sawe réew mi wala seen réew mi
nga ne bokkuma moom secte dana ko wala koñe kii bokkuma moom seet dinaa ko poñe ni muy dox du sotti xaadir bi def ko xaadir bi def ko layen bi def laayeen bi ko def ko kon kañ la adduna ak li ñu bëgg ci Sénégal kañ lay kon sotti li ñu bëgg Sénégal ak àdduna li ci bëgg kañ lay defaw sëriñ si suñu dëkkee ci loolu yar ci seenu taalu bi l'islam bi kañ lay am li mu waaw bëgg sëriñ si buñ dëkkee ci loolu yegg seen taalibe bi islam yi li mu bëgg kañ la koy am jabar yi suñu defante noonu kañ la seen jëkkër di am jàmm ne jabari bu jëfenteeroo ci biir kër yi seen dëkk kañ lay am jàmm doom yi suñu àndee noonu kañ la bàyyi di am jàmm doon yi bu ñu àndantee noonu bàyyi kañ lay am jàmm ak kañ la adduna bi ak di kañ lay defar adduna yi defaru kon du defaru kon
suñu dénkee murit bi ne bu ñu dékkee murit ci Sénégal la bokk ci Sénégal la bokk sa mbokk sa mbokk yéen a bokk allahu yéen bokk akbar allahu akbar yéen a bokk la ilaha yéen bokk illallah la ilaha illallah
dafa war a defaral Sénégal yow it nga war a defaral Sénégal dafa war a defaral Sénégal yow it nga war a defaral Sénégal waaye nit tànn la nekk di sa kilifa waaye nit tànn la nekk bi sa kilifa benn bu di ci gouvernement bi benn mu ci gouvernement bi mu teg la ci béréb pour nga liggéey mu teg la ci béréb pour nga liggéey ànd ak nit ñi dimbale ànd ko ak nit ñi dimbali la yë- dimbale ko yëg dimbali dimbale la gouvernement dimbali bi gouvernement yërëm leen bi yërëm leen di leen dimbale ci seeni aajo di leen dimbali seen i aajo nga profité ci doole yi gouvernement bi yow nag nga profité ci doole gouvernement bi ba tax njaboot gi noonu kilifa gi ba tax njaboot gi noonu kilifa gi la fi teg dimbale woo ko dimbali woo gouvernement bi su dee sa président bu dee daayira président tey du daayira pré- bu dee président daye sëriñ bi tànn la teg la ci sa kanami nawle du rawuloo leen gënuloo leen gënuloo na leen muus sëriñ bi tànn la yow sëriñ sa sëriñ naa leen nga jiite leen te rawoo leen gënoo leen gënoo leen mosit bi
yow nga bëgg a sànni sëriñ bi fale yow nag nga bëgg a sànni sëriñ bi fële doxal sa jikkoy bopp ju ñaaw doxal si jikkoy bopp di ñaaw
tas ñu ñu la dénkoon tas mbooloo mi ñu la dégg ba kenn ku nekk di sa noonu ba morom kenn ku ne di sa noonu morom nan nga dimbale nan nga dimbale sëriñ bi fi la fi leen teg muqaddam bi noonu mu xadda bi noonu cheikhu qadir bi noonu teeku xaadir bi noonu cheikhu bu murid bi noonu waxu murit bi noonu muqaddamu tariqa bi mu noonu xaddamu tarixa bi noonu yooyu bari dafa bari ci réew mi te mi ngi dox te ñëpp a ngi koy teg seen bët yi yooyu kat dafa yaatu ci réew bari ci réew yi te mi ngi tax ci ñëpp a ngi ci seen dëkk
te itam tey
préfet préfet sous préfet sous-préfet gouverneur gouverneur ministre ministre président président ak portefeuille ak portefeuille ni ñu bare ni ñu bare ndax euh, gouverneur man na bés bu nekk mu fab tànkam rek lu wër région bi ndax góor-góor mën na wax wax fu mu ne bés bu ne mu fab tànkam bu résorbé di seet lu jub ak lu seet jubul lu jubóo lu jubóo daf ko man mënu ko manu ko mais mënu ko
dàqonte wala moom lañ dénk région bi dàqul na dàqatu moo leen jékk région bi waaye moo nag bés bu ne kat muy wër ci biir région bi la xamu dafa toppatoo ko nii est ce que ministère am daf ko man ministère bi mënu ko ci li mu li mu li mu ministère est ce que premier ministère daf ko premier man ministère mënu ko est ce que président daf président ko de la man république mënu ko sëriñ bi la tànn ci sa moroomi taalube teg la ne yaa amee sama baat ci ñoom ndax dafa man di wër taalube yi sëriñ bi rek teg tànn seen kër taalibe yi nit ñi yaay sa baat yow mën na kenn ko ne taalibe yi wër la ba xam lu xam seen diggante loolu lu muy niru loolu mu nuru kon la yàlla doon bañ la yàlla doon bañ ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني يلا نجاد ورت رفت التجكل ne yàlla nee na jaaduwul te it rafetul te it jekkul أكو من الدور ak ku mu mën a doon ما باخر جلل شي سبيل مرام ma baaxee la jëlee rek si biir morom def la sama représentant def la sama représentant ci ñoom ci ñoom jox la lettre jox la lettre bu ñuy tuddee bu téere ñu tuddee téere nga jotalal ma nga jotalal ma ko ko. nga sànni sama lettre nga sànni fële sama lettre fële sànni ma fële sànni ma fële taxawal sa bopp taxawal sa bopp joxañ sa bopp joxe sa bopp woo nit ñi woo nit ñi jëme ci yow jëlee sa bopp yàlla ne yàlla nee na ki ma jëfanteel li ma lii jëfanteel lii nga faye ma nga lii xëyee na lii kenn gënu la ko rek kenn gënu laa goree
coow yi yëpp fii rek la dekat coono yi yëpp kër gi rek ko waral su kilifa yi jubee ci wàllu diine ji taalibe yi jub kenn du ñu dégg su kilifa yi jubee ci wàllu diine yi taalibe yi dinañ jub kon kenn du ñu dégg li gouvernement bi bëgg ci Sénégal ci déggoo ak yaatu ak ñu àndandoo def union su fekkoon ni ñëpp doon la ñu def it ni kilifa yi def moom la ñu def kenn du ñu dégg lii gouvernement yi bëgg ci Sénégal ñëpp ànd nekk benn déggoo dimbalante def union li ñu bëgg suñ ko defoon kon kenn du ñu dégg
mbir mu jafe la nag ah waaye nag kenn mbir mu jafe yi la
waaye yàlla mi nga xam ne ku mu yéege ci béréb daa ci àgg waaye yàlla mi nga xam ne nii ku mu yéegi ci béréb dañ ci àgg yàlla nañ ci yóbbu yàlla na ci yàlla yóbbu ñu ngi ziyaara mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk lislaam bi ñu nag ci réew mi ne ñu ngi siyaare mboolem kilifa yi yàlla dénk islam bi te ñu nekk ci réew
def leen chef yi def leen chef yi confrérie secte yi mu def leen njiiti tarixa yi
maa ngi leen di ziyaara bu sell ci sama diggante ak sama borom jëme ko ci ñoom ala jàpp ne ñu ngi leen di siyaare bu sell ci digganteem bu boromam jëme ko ci ñoom di leen xaritoo di leen bokkoo naka woon démb ak la ko jiitoo ñu ngi leen di xaritu di leen bokkoy naka woon démb ak la ko jiitu fas yéene ñaan sama borom itam ma den nekk ci loolu di ci dund te muy dëgg ba mu wujj sama borom fas yéene ñaan boromam mu nekk ci lool di ci dund ba muy wuy ji boromam yàlla na yi fas yéene nekk pusab kër yépp fas yéene nag nekk kusab kër yëpp ak jullit ak yépp jullit yëpp gouvernement beeg yépp gouvernement beeg fépp fu ma yége xotti ko xotti fu mu yëge xottiku xottiku
ca am ca ndigal ca am ca ndigal
ca am na ndigal sax yàlla wax na ko te ba am noppi na ndigal ndax yàlla wax na ko ku ma noppi yàlla na na ngeen ma ragal te defar seen i yàlla digal ne ni ngeen ma ragal te defar seen i digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fu fu waay yége lu yàqu na ko defar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi waaye yéegi lu yàqu na ko defar loolu la fas yéene loolu la fas yéene amul murit amul murit amul qaadir amul xaadir amul tijaan amul tijaan te benn weer te benn weer du fukki weer du fukki weer benn at benn at du fukki at du fukki at
daanaka ñun ñëpp li ñu tere dund seetal tuuti la mais daanaka ñun ñëpp li ñu tere am dundu seetal lu tuuti la nit bu demee ba sut baayam dund nit bu demee ba baay subaayam fan su nit bu demee ba subaayam ay fan wala mu wóor ko ne li baayam dundoon làq na la ci làq na ci lu bari tuute ko dese wala mu wóor na ni la bàyyam bi loolu làkk na ci lu bari tuute ko dese war na fu mu toll la ëpp ci xalaatam mooy di muñandiku li fi jële woon baayam war na fu mu toll ci xalaatam mooy muy mu yëngu ko ci jële woon baax te mooy mu summiku ci lépp loo xam ne lu yàq la dugg ci lépp luy te def mooy mu summiku ci lépp lu yàq dugg ci lépp loo xam ne day defar bañ ko yemale ci njabootam rek mu bañ mu def ko nag bañ ko yemale ci njabootam rek daf koy def ngir gouvernement bi am jàmm daf koy def ngir gouvernement bi am jàmm daf koy def ngir sëriñ si am jàmm taalibe yi am jàmm day def ngir sëriñ si am jàmm taal bi am jàmm
dana ca dégg lu nekk sëriñ si dégg lu ne
diw day def fa buum te daatam jox gouvernement bi ñoo ko amee jii dafa buum dafa buum def ci baatam jox gouvernement bi ko amee diw dafa ñàkk bopp loolu dafa ñàkk bopp
alla yi mu tegoo daf ko ku ko teg daf ko war yàlla yi mu te yi mu tegoo ci boppam ci nun waru ko tàggatal leen xar yoo xam ni yéen a bokk borom nga di ko rendi di ko lekk tàggatal la xam yi nga bokkal borom ngeen di ko rendi di ko lekk dafa war yàlla loolu warul yàlla xam nga loolu su fekkee ne loolu la kay yàlla it na kër ko rasul ba xam fu tabaski di su jóge ci fekkee loolu kay loolu rek la bu yàlla koree say loxom kon fan la tudd si bàyyi ko kon nag nañu ànd ñu dimbalante man ci loolu la fas yéene nekk ne nanu ànd dimbali leen ci moom day ci loolu la fas yéene ne nekk jaamu jullit yépp jaamu jullit yëpp
bëgg lépp lu ma mën ci yéwén yéwénal ak yéwéne insha allahu taala dana ci def sama kemtalaay foog nga lu mu mën ci yéwén yéwénal ak yéwéne incha allah dana ci kàttanam ba mu jeex ñu ngi ñaan yéen mbooloo mi ñu ngi ñaan nag mbooloo mi yëpp ak képp koo xam ne kii déglu na émission bi nga xam ne Mansour Mbaye dana ko doxal waaw képp ku jëlee émission bi moom Sër Mbaye di doxal ñaan jot na sëkk mais ñaan jot na sëkk
waxuma ne pour ma yirif nit ñu déedéet mais waxuñu moom mooy nit ñi déedéet bu ñu ko déggee noonu buñ ko déggee noonu seen moromum jullit bi seen moromum jaam moom daal seen moroom jullit la